am na ñeneen ñoo xam ni dañoo jël profité ci waxu nday dof nit xaw ma dof nday jël benn photo boo xam dafa ànd ak ki nga xam ni moom mooy Amadou Sall doomu président Macky Sall ana kan moo dul àndandoo ak nit photo ak moom et cela kooku moo la yónni ok nañ jël seen hypothèse nañ jël ni parce que Amadou Sall photo wu na ak Dof Ndeye moom moo ko yónni nañ jël hypothèse boobu après on va essayer nañ jël hypothèse boobu après on va essayer on va essayer d'aller voir ma tegal leen benn fii léegi ngeen gis ko voilà mi ngi nii donc kii Ousmane Sonko la ak ki nga xam ne mooy Akhenaton ñoom ñaar ñoo ànd photo ñoom ñaar ñoo ànd photo mi ngi nii ma tegal leen ngeen gis ko Ousmane Sonko la ak Akhenaton voilà ñoom ñaar ñoo ànd ci foto ñoom ñaar ñoo ànd ci foto taxana tan saga na seigne muntaka mbacke saga seigne babacar si mansour saga cheikh mahi nias kon ousmane sonko ko yoni selon sen hypothèse parce que bu nekké kenn ku nek photo nga ak nit kay def rek dañuy jël keule sipi ko ko mais kon nañ sipi saga axana ton ñimi saga khalif généraux saga axana ton ñimi saga num tuddu sax sénégalais yi nañ ko jël ñu transposer ko ni ñu jël sen déduction yeen c'est la même hypothèse donc Sénégal il que fi gis des vérités de circonstances des patriotes de circonstances et je crois que tu le dañuy dem ñu déglu ñu déglu nous fotowu ak ak ak ak ak ak ak nu nous tudd euh, ak euh, ak euh, nous Ousmane Sonko ngeen comme ku ku ne kooku mi ngi nous Ousmane Sonko et pourtant quand on a nous ngeen ton Ousmane Sonko yónni wu ko bokkul Pastef mais parce tout simplement ñoom ñaar dañoo ànd fotowu kenn ku nekk am nga sañ-sañu gis nit bëgg ko fotow moom amatu sàll Dof Ndeye am na sañ-sañu gis ko fotow ak moom Dof Ndeye bu ko neexee bu ñaanee amatu sàll bu yoree mu may ko cela ne veut pas dire que Amadou moo ko yónni kon mu ne wane fa na Akhenaton bi nii mi ngi noonu xamoon ko waa TikTok mi ngi nii bu dee ku nekk rek ki nga foto rek bu saagaa rek. yaa ko yónni mi ngi nii axana tan ak axana tan mi ngi noonu ànd ak ànd ak ki nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy Ousmane Ousmane Sonko ñu dem déglu ko déglu ko. wala sax ngeen wax ci li gën doomu aadama yi Macky Sall dafa toog ngeen ne ko Macky réew mi dañu sonn nañ Macky Sall comme Macky li ngay wax ak hôpital yeeg Macky bi naan daan liggéey amul nit ñi sàmmkat yi bii réew mi naqari mu yëkkati kàddu ne ko rajo ñëpp di Abdou la ci boole ay boo génnee kilifa nga da ngaa war a yëkkati sa kàddu ngir yàlla suñu neex li ma neex mooy fii yéen yéen a nga ca dem seen tiyaar yi fi doon tiyaar boo ci gis Macky Sall lay watal tiyaar yëpp Macky Sall la ñu watal ne nga ànd ak mbay si maakum yow fu Macky tourné ñu tourné te ñoo nekku ci waaye murid mënu muusa ka macat ba jox seen carte Macky Sall te pourtant la la Macky Sall def ci ci Touba deful deful ataka ya deful at yi fekk di benn ataka yeeg suuf si ak alal réew mais fekk ñoom fu na lool lool lool lool lool xamu li ñu leen fa tabaxal xamu ñu kenn xamul hôpital boo xam lañ ca def mu gis ñu nekk ay intermédiaire bëgg di dund te doo sonn doo liggéey parce que mbàccee nga sant si nga sant laay nga sant ak yéeg yéeg def seen sant yooyu te dañ ko def ba noppi nag ne kenn du ko wax ah maanaam ñun ñoo yor marché yi yu tey baax yi ñooy jéeg yu ta jéeg yu xees pëcc ji ñooy lekk ganaar yu tàng yi ñooy tëdd ci néeg yu climatiseur yi ñooy taax yu baax yi ñun ñu sant Macky si la caw ak laay ak ñoom ñun. xaay bi ñun kon kii Ousmane Sonko moo ko yónni parce que fotowu na ak moom fotowu na ak moom donc lii dama ci sori donc nañ jàpp ne nañ jàpp ne affaire dof ndey ak ki mu jam affaire lu ñaari citoyen la yoo xam ne kii na kee kee ñëw fii kii ñu xeex nañu la sa xew xew na ca ñu génn ci Amadou Sall parce que foto nit rek. tekkiwul ne tey jii voilà voilà donc ki man mom la and lak mom la yon nek nangam bo ba léegi yéen ngi wut lu ngeen tek ci ndodd bi dem ngeen sax ba jël ben photo ben vidéo bo xamni benen nit la ngeen ne Amadou Sall ngi ni donc vous essayez vous essayez le président là parce que mon le ko atteindre vous ne pouvez pas vous attaquer au président Macky Sall si bilan mënul nek mënul attaquer Macky Sall ci wax ju bëri mënul nek mënul attaquer Macky Sall ben fan jën ngeen wut ci madame fay sall sottiwul jën ngeen wut ci masou fay wul tay ngeen bëgg profito ci ben affaire bo xam ça c'est passé entre deux deux deux personnes deux deux mais bu dul bobu aussi yeen da ngeen fi taxaw nit dof taxaw fi tag ay saga nday ngeen taxaw di manifester ne lañ ko bayyi pourquoi ñoo ko bayyi saga da mais yeen la andal donc affaire nafiq yi ngeen def mom ça ne prospère pas et ça ne peut ça ne peut prospérer donc boobu moom loolu laa doon tontu bu nekkee kenn ku nekk koo foto woon rek donc loo def moo la ko yónni kon axana ton Ousmane Sonko ko yónni muy saaga xalif généraux yi ça c'est clair parce que war naa foto donc loolu moom féete na boor donc ma ñëw ak yéen ci nu mu sax euh, les avocats de Ousmane Sonko Avocat Ousmane Sonko yi ay avocats yoo euh, voilà donc duñu